merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Abdou Top jërëjëf Omar bu ñu xataab Gueye ah macha allah nice na lool la donc ñu sargal ko elle est ak abayam bu nice bile ah sama rakk ji Diouf ñoo ko bàyyi borom gaañ ñi noo def namm naa la sooy demati den takkal sa ndax dan lay namm <laughs> ñu bàyyi la nga nuyu tam mbokk téléspectateurs yi Fatou. di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan suñu mbokk internet yëpp waa solution TV waa Walfadjri ak waa régie ñoom topp ak ñoom nga xam ne ñoom mooy di euh, Ablaye wax ne namoon naa ko lool di wax plateau bi tamit yaa ngi na macha allah tubaar fakal la euh, di féliciter encore une fois àllaaji saa suñu kilifa ki nga xam ne nee naa la njiit bu motee njiit rek neex a jiital wax dëgg fa neex yàlla mu nekk na koo xam ne euh, lu mu am bokk na ko nit ñi te mooy nit buy raam di la yóbbaale bu amee oto xam nga du la fa bàyyi tey wane na loolu ñu ngi koy jaajëfal di ko wax ne li mu def yanj na baa fakaa la macha allah yàlla na yokk ba yëg ko su kaa mbay ci kanam ñëw li nga xam moom mooy di école des jeunes mariés ak thème bu neex euh, waaw ci kanam tuuti ah ñu ñëw ci thème bu neex boo xam ne dañu ko indil macha allah India show oui Souka Mbaye ah. Dany <laughs> macha allah di la nuyuwaat rek eh, ni ma koy faral di defar rek di nuyu la très belle di ah Didi yaa yaa tey macha allah ah, blanc bi rafet na lool soo rakk ji waaye nag di la kontaane di nuyu nag eh, Mili Endofil di nuyu téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi macha allah rek di naan xaay Sénégal xaay dunia jit naa logo ko décrier Hamara TV ab ko bexen ab ko dostu Fadji Endo ab ko décarrier programme pour anda zamana clé orne a zamana clé o sapkeliye dunya ki xar xusi mile sap ko di ñaanal ñëpp mbég tey àddina tey nag suka dañuy dem en Inde dañuy dem en Inde macha allah fas yéene leen a indil benn film boo xam ne maanaam bee fa faase fa faase euh, warkat ak innocent film bi noonu la tudd mu nekk nag euh, film bu am solo ci jigéen diggante jigéen bi nga xam ne maanaam boroom këram takk na ko gis na ko bëgg ko takk ko comme ni ko niñ koy gisee ci image yi maanaam ba mu takkee ndaw si nag ñu def ay fan euh, amuñu doom ndaw si dem hôpital mook waa ji ñu ne ko yow mënoo am doom ndax dafa am maanaam doo jigéen maanaam danga nga jaaseer ñu baal ma ci kàddu gi ñu ne ko mënoo am doom waaw waa merci Souka Mbaye ñu ne ko mënoo am doom ba mu xamee nag ne mënu da am doom ba mu leer ko ne mën da am doom mu daal di ne jëkkër ji gannaaw man mënuma am doom dama bëgg nga takk beneen soxna soo takkee beneen soxna yàlla mën na dogal nga am ak kooku doom xëy na yëf yi ci man la nekk waa ji bañ waaye ba mu gisante ak gorom goro bi ne ko mu ne gorom bu góor bi mankat wax na ak sama borom kër pour mu takk beneen soxna waaye dafa bañ paa bi ne ko nag yow de loolu am na droit takk beneen jabar gannaaw moom jullit la waaye gannaaw yow yaay première jabaram ci sa ndogal rek ak ci sa nangu ci lay takkee beneen jabar ndaw si ne ko man nangu naa wax naa ko waa ji bañ goro bi tam wax ak jëkkër ji jëkkër ji bañ waaye ndaw si amoon na xaritam boo xam ne ñoo nekkandoo woon école ànd seen ngoone yëpp ñoo ko àndandoo def ko école mu dal di eh, woo kooku ne ko nag bi nga tukkee dama am borom kër ci diggante bi mais bërëm kër gi lii ak lii mooy problème bi léegi gannaaw yow yàlla dafa dogal nga nekk sama xarit nekk sama nit dama bëgg nga ñëw sama borom kër takk la nga nekk sama wujj ndaw si nag ne ko yow dangaa dof wala lan moo la daal en tant que sama xarit ki nga xam ne dama ko wóolu mu wóolu ma ñu àndandoo defandoo lu bari ci suñu dund nga ne ma ñu ji ak yow loolu mën na nekk mu ne ko man su ma soxla woon maanaam yow boo toll woon fi ma toll soxla yenn sacrifice yi man dama la koy defal kon waroo ma koo bañal ndaw si bi mu xoolee xoolaat dal di nangu comploté nag ak jabat ji maanaam fexe def ay pexe comme pexe jigéen ba nowante ak waa ji di joxanteek moom rendez-vous waa ji nag takk ko ba mu ko takkee maanaam avant mu ko takk ndaw si ñëw ci baayu jiitleem parce que yaayam ak papaam dañoo gaañu gel bi mu ne leen dafa am ku ma bëgganteel daf ma bëgg a takk mais condition bii la euh, tonton bi ak tante ji ne ko nag kii warulaa takk noonu noonu rek mais bu lay takk gannaaw condition yi moo tax mu lay takk na jël alalam yëpp def ko sa tur maanaam pour boo amee doom doom boobu mooy moom alal boobu noonu nga xam ne yaay féetewoo ak lépp ñu tagal waa ji condition yi waa ji ne waa ji dafa bañoon sax jabaat ji ba tey ne ko amul benn problème man nanga am doom paa bi gis sa sëtam rek man amul problème ah ñu takk sëy bi waa ji def signature boobu ak ñoom maanaam alalam yépp dem na ci loxo ndaw si ak euh, nijaayam bi te xamuñu ne nijaayu ndaw si ak tante ji ay bandi lañu ñoom dañuy manipuler xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi tamit euh, xaw a nangu euh, ba ñu takkee sëy bi nag yàlla dogal ndaw si di def ay sarax dem saraxe ji ay maanaam néew di doole yi di togg di leen jox ci benn jàkka tase fa ak bayfaal bi ngeen di gis ci image bi ba mu tasee waaw am na bayfaal bu romb sànq ba mu tasee ak moom ci bërëb boobu nag bayfaal bi ne ko ah soxna si yow day borom baax nga te gis naa ne danga am benn problème bu mag mooy bay fal bii ngeen di seet ni yëkkati loxoom ca kaw xëy yàlla suñu boroom jaam bi walla kii nga xam ne moom mooy e, dimbali neew du doole di leen jox lu ñu lekk di leen jox lu ñu naan di sonn si ñoom am na jafe-jafe bu mu am muy doom yàlla suñu borom mayal ma ko doom yàlla suñu borom mayal ma ko doom ñaan ba mu ñaanee nag yàlla dogal non non ci ci waa ku ki nga xam ne moo ñaanal copine bi jëkkër mm-hmm, mooy mm-hmm. aawo bi rek mm-hmm. yàlla nag nangu ñaan boobu ba mu nangoo ñaan boobu ndaw si ëmb maanaam moom sax moo njëkk a ëmb kële sax ki nga xam ne mooy ñaareel bi ba mu ëmbee nag annoncé goro bi gannaaw ñëlee bi bi ñu takkee rek ñoom dañoo woor maanaam xaw a beddeeku ne comme takk nañu léegi ñoom dañuy maanaam damay jël waa ji féetewoo ak moom sama kër maanaam nangu waa ji ci ndaw si nga xam ne awo bi amatul sax accès ak jëkkëram perte na jëkkëram daanaka ndax jëkkëram fële la féete ak gorom yi léegi nag ba mu ëmbee goro bu góor bi daal di dem ca kër kële ñaareel ba nekkoon ak ne euh, euh, gorom yi kii de yàlla dogal na mu am doom xam naa ne nouvelle bi may annoncé neexul sama goro yi waaye nag foog ma indil leen nouvelle bi partagé ko ak yéen ba ñu ñëwee partagé ko ak ñoom ci la ñu ne waa ji maanaam euh, ndaw si maanaam ñu ne gel bi yow day kële daf la wor sa xarit bi wor na la parce que daf la ne woon mën na am doom léegi nag yàlla dogal na mu am doom kon fexeel ba dootul amati accès ak eh, jabaram bale na ko forcé ba mu ko ne nag dama lay fase ñu tuumaal ndaw si sax benn jour ne dafa posone ki nga xam ne moo di ñaareel bi pour mu avorter fekk moom tam ëmb na ñu tuumaal ko fekk benn daam la ñu fay pour mu ñëw def ci meew boobu eh, poson far muus bi naan ko dee ñu ne yow yaa fay mbindaan bi pour mu posone ñaareel bi pour mu faatu pour yow nga mën a nekk ak saawaay tuumaal ci ndaw si ndaw si nag weddi jëkkër ji ne ko yow la mu ne ko euh, ki nga xam ne moo di euh, jëkkër ji ne ko lenn moo mën a nekk mooy nga nangu lii wala ma fase la nga nangu tuuma bi ñu la teg ndax xam naa ne yow yaa ko def wala ma fase la ndaw si nag bañ na ku ko fase ne waat naa ko ci suñu sëy man ak yow man maa sàcc lii man man maa def poson bi kii liñ ma tuumaal yëpp dëgg la mais ngir yàlla bu ma fosee ñu nekk noonu euh, maanaam fosetu ko mais nangu na tuuma bi ñu ko teg ndaw sële tam ak yow paare na jëkkër ji àddina di dem di dem ba yàlla dogal mu accouché maanaam ba muy accouché tombé kële tamit moom mu ngi accouché ñu bokk même hôpital mais aw bi moo njëkk am doom bi mu amee doom nag papa ji maam bi maanaam daal di kontaan. Euh, jël xaalis bu bëri séddale ko ci hôpital gi maanaam ne dafa am bànneex bu mu yëg ndax foogul woon ne dina dund bànneex boobu jënd ay kadoog lépp neexal ñi nekk ci hôpital bi keneen ki mu ngi tëdd fële di waaja am doom goroom yi ne gis ngeen sa goro bi mu ngi jël alal gi di séddale ah te yow alal bi sa tur la nekk ndaw si ne xaaral ba ma génn ci hôpital bi far yàlla def moom tamit mu am doom maanaam ñoom ñaar ñëpp ñu am doom bu góor kee doom bu góor kale doom bu góor mais bi ñu génnee waajale ba tey gisul doom bi ndax ndaw sale da ko xëcc ak ay mbokkam kidnappé ko maanaam waaji daal bëggatul dara si fële kële nag nekk ak gorom bu góor kese ci kër gi gannaaw ba yàlla defee nag ñu génn hôpital goro bu góor bi ak uh, papan aawo bi ak bébé bi ànd génn dem marché benn jour maamu xale maanaam papa ñaareel bi def bomb ci oto bi rey goroom rey xale bi ak papa ndaw si maanaam xale bi mu juróon dal di wàññeeku bi ñu bomb bi explosé yaay ji sauvé ak uh, ki nga xam ne moo di goro bu góor bi fekk goro bale moom moo ko def waa ji nag ndaw si nag commencé waat di souffrir foofu waaye ci biir souffrance yu àddina comme li ñuy wax rek ak ay réalité am di dem di dem di dem ba waa ji découvrir que ne famille jabar ji maanaam ay bandi lañu te dañu doon manipuler ki nga xamante ne nii moo di ñaareel bi ak euh, famille bale maanaam jaxase nañ ko ak ki nga xam ne warul woon a tàqali ak moom waa ji commencé nag di réccu ba muy réccu nag ñëw ci ndaw si ne ko nag dama bëgg melaat ni ma meloon ak sama famille ndaw si nag ne ko du ci dal ndax man dama la bëgg te danga nga ak man lii ci la ko ne nag xamuloo lu bari mooy sa waajur yi nga jàppate ne ñooy say waajur ay bandi lañu te dañu lay manipuler manipulation bi ñu lay def nag naa la woon preuve bu leer que ne ñii dañ lay utiliser gana ba mu wonee ndaw si secret bi nga xam ne waa ay waajuram ñu ngi ko doon def di ko maanaam di sàcc alal ji di di ko manipuler pour accaparer li nga xamante ne ni moo di alal gi ndaw si commencé nag xippi ay bëtam Uh, ba mu demee ànd ak jëkkër ji far yàlla dogal mu gis uh, papa ji ak yumpaañ bi sars seeni valise ay alal maanaam matériel ak alal ak ay takkaay di génn kër gi jëlaale xale bi sax nar a daw ak moom ba ñu naree daw ak moom nag ci la ndaw si ak jëkkër ji ñëw mooy ñaareel bi ak jëkkër ji mu ne ko gis nga li ma la doon wax sa papa ji sa nijaay bi ak sa tante dañ la doon manipuler léegi nag ñu ngi nii di daw ci la pap bi bandi bi génnee pistolet bi ne ko nag gannaaw lii moo fi sës sa doom bi ma téye nii su ngeen ma mayul ba ma dem dama koy rey fekk ndaw si ndaw sele xale bi bu mu deewee jëkkër ji maanaam bu mu demee di ñaanal doom ja mm-hmm. euh, tombe ak ndaw si posone woon muus bi maanaam kiñ ne woon dafa euh, tuumaal euh, dafa dafa kii maanaam aawo bi moo def loolu fekk ndaw soosu daf ko fayoon léegi nag jëkkër ji bi muy ñaanale doom boobu nga xam ne ñàkk na bakkanam ci la tase ak bandi bi ak ndaw soosu ndaw soosu nag bandi bi bëgg koo rey ndax dafa am dil bi nga xam ne defoon nañ ko ndaw si ne damay wax dil bi bu dee joxoo ma temps pa bi ne ko naa la indil ay millions nañ tase ci armeel ya bañ tase nag ñu nar a rey ndaw si tiire ko mais deewul pa bi daw ndaw soosu nag moo génnaat moom tamit wax secret bi nga xam ne def na ko maanaam manipulation yi nga xam ne ñële ñu ngi ko doon teg gannaaw ba nga xamante ne jóge nañ ci loolu nag ci la ndaw si découvrir secret bi moom téye woon nañ ko ci sax ndaw si ci maanaam bomb bi ki woon xale bi ñu ne moom moo ko faat ak yooyu maanaam commencement film bi yëpp ndaw si de expliquer histoire bi ni mu demee ci fin bi nag bi nga xamante ne secret bi yëpp feeñ na mu daal di jël poson xaru ndax moom nee ne prison maanaam mérité wul prison mais dee mérité ndax kii nga xamante ne ni moo di xaritam ak mbaax gi mu ko ji ak wóllëre gi mu ko ji ak moom fi mu mujjee ak fi mu jaar ak moom te fi mu jaar yëpp bokk na ci manipulation bu yaayam tantam ak nijaayam def ci moom tax na méritowul dund méritowul prison lu fay xaru ci noonu mu xaru ci tribunal bi mhm. mu xaru euh, ndaw sale nag daal di ñëw fekk mu ngi toog daal di koy uuf mu baalu ko àq nekkoo ko muy dee noonu mun ne ko waxal asadu laa ilaaha illallah asadu anna muhammadu rasulullah ndaw si tamit wax loolu ba ni mu seddee ndaw si des ak jëkkër ji ak goro bi ak xale bi nga xamante ne nii moo di doomu ndaw salewaa noonu daal la ka histoire bi demee comme ni ma ko mën a mu nekk nag lu ñuy faral di gis ci àddina rawatina ci réew mi muy dal suñu yaay yeeg suñu maam yeeg suñu maamaat yi nga takkal sa borom kër wujju wujju boobu indi la ay jafe-jafe yoo xam ne sax danga naan lii su ma yëgoon wala sax mu jël la fi accaparé lépp takkale la ak sa borom kër alaaji sànjoogu mbirum ci caaxaan lañ ne <laughs> waaye nag lu mu ci mën a doon rek mhm. eh, message bi mooy li am mhm. solo mhm. muy que ni lépp rek mi ngi dellu ci alal alal waaw pour wane rek alal eh, li mu mën a def léeg-léeg nga gis eh, jigéen ñi moom seen xalaat yépp mooy ñooy njëkk góor ñi ñooy njëkk a dee dëgg la maanaam. Mhm. ñoom mhm. dañuy programmer ne ndono. Mhm. lu ñuy doon voilà. boo seetee lépp dafa dellu ci ndono. ndono la voilà. yow yaay moom lii après bu kii deewee. mel ni ñoom dee gi. ñoom ñoo koy contrôler yooyu nag boo tax pareen saa am na ñoo xam ni. Eh, benn waaye mës na ma wax ne ma alal euh, risque la. kii la danger la boo ko xasee ba am. yaa ngi ci danger te xamoo ni yaa ngi ci danger. dëgg la parce que léegi yow ñi ngay nekkal ñi ngi di amaat yeneen projet yu bokkut ak. ay ya ñu amoon ak yow ñi ngi yeneen gis-gis. parce que ñi ngi naan alal jii mhm. bu ci keneen duggee. <laughs> Ah. mën naa demee nii mën naa demee naa mën naa demee ne le mbaa du ma perte mbaa du ma maanaam ñi ngi kii ñi ngi def calcul. Mhm, mhm. te yooyu nag. Euh, li ëpp solo mooy ñu jël yooyu yëpp ñu teg ko ci suuf mhm. la nga xam ne mooy li nekkoon njalbeen gi mhm. kële lu baax la doon wut moo taxit lu mhm. baax rek moo lay mujj fekk ci lépp loo xamante ne bi yaa ngi wut lu baax gis nga tey même bu fekkee ne nit mi ngi def lu bon jàpp ni li mu ciy am nii lu baax la peut-être ay nit mën nañu gis ni kii mais moom en personne bu toogee dana du mën a savourer ci li muy nekk sax beneen saa yi nag nit mën na gis mhm. muy def lii yor après di wëndeelu di def yoo xam ne ci saayir si mhm. gis ko mu dëkk ci kër gu rafet yor oto di wëndeelu mhm. mais au fond moom ci boppam yaa ngi dégg mi ngi ci kaso boo xam ni xam na ni mënatu fee génn ilaa yombi din et tamit gis nga nit ku ko gis rek ñaanut yàlla nga xam ni mu amee lii nga xamante ni moom la am. Mhm. moo tax lépp lu nit di def rek. Mhm. jéem a la fexe nekk ci njub. jéem a fexe aussi tamit. teg say mbir ci kiit parce que loolu mooy li nga xam ni mooy li ëpp solo. Mhm. donc loolu da nga wane fii rek jigéen ju baax. waaye aussi tamit jigéen joo xam ni peut-être famille am na benn influence bu ñu am ci moom ba mu mbonloo ko sax mën na am sax moom peut-être loolu nekkutoon ci moom mais njabootam a ko bonloo mhm. yóbbu ko ci beneen état d'esprit mhm. donc loolu mu nekk loo xamante ni bi lu am solo mais mhm. message bi eh, jàll na te am na solo dëgg la ma macha allah njàngale indo yi noonu lay demee liñ naan indo yi seeni film day bëri ay thème da ngay da ngay laal fee laal fële laal fële macha allah waaye thème bi base bi rek mooy wàllum ndono ak ki nga xam ne aussi jigéen ju baax la bëgg fameem maanaam jëkkëram bëgg bëgg ay gorom bëgg loolu moo ko dugal moom tamit ci souffrance bi mu jot a jaar waaye ni ko saa njoogu waxee rek dëgg moo njëkk te moom mooy mujj Omar bun Xataab faatu Fatou saa dafa wax benn wax koo xam ne dama mës a dajeek benn vieux fi mhm. nii faj Walfadjri mhm. moo doon dem point E quoi mhm. mais fii am fi oto day jafe mu gis ma rek taalal ma loxo yor oto bu weex bu rafet ñu ànd mais comme li Saliou wax moom la ma doon nettali quoi. mu mhm. ne foo dëkk ma Kër Massar. Mhm. mu ni ma pourtant amoon naa ay di côté Malika expliqué nii mais da ngay comprendre ni mhm. maanaam fi ngay jàpp ni foofu ngay noppaloo foofu la coono yi di tàmbalee mun a man bu doon bu tey doon démb ay terrain ay kër ay lii mun a parce que euh, njaboot gi au Sénégal fii li ñuy gën di màgg ñoom di gën di jubóog seen yaay di la rey te deewagoo yow. waaw maanaam yow ñu ngi préparé wu. sa lii sa deew ko quoi mu jox ma ci ay exemples yu bari ci loo xam ne tey de mënuma àdduna ñaanal yàlla rek. am loo suturloo. amooy kër am doy na ko mais. yu yu bari parce que góor la gu suñu borom barkeel. Mm-hmm. moo ci nettal yu bari nga xam ne dafa am déception yi bari pour plusieurs raisons yoo xam ne ci famille lu jugee te alal ju rek moo ko jural. du loolu. alal ñi taxoon mu daan rey euh, boppam. Mm-hmm. ñooñ bi ñu demee ba dëgër. li ñuy séntu ci moom mooy doonu ko rek mm-hmm. waaw léegi euh, comme euh, ni nga waxee ci femme bi mm-hmm. moom lu baax la doon def mm-hmm. mais amu ci lu lu ko neex. maanaam ci diggante bi parce que tamit baax goo gis day am natt. waaw natt bu méttee maanaam baax dafa dafa jafe-jafe goo xam ne yombul. loolu tax boo baaxee suñu borom da lay tegal ay épreuve di la nattu di sax yenn saa mu natt la sax xool ni est-ce que dëgg la ci yow. parce que xëy baax yomb na. mais dëkk sa. moo jafe moo jafe. Mhm. loolu tax épreuve boobu tey jii mu doon ji kooku. Mhm. mais benn jamono rëccuwu ko parce que avec le temps moom dem na ba. histoire mhm. histoire jox ko raison. ci dëgg goo xam ne defoon mais yéene bu baax bi mu amoon. mais kii amul woon yéene bu baax fan la mujjee ak moom. xam ne li naan la baax ku baax. ku ne mën na la bonal mais yow doo bon. doo bon imaginal dem na ba ki ko teg lépp bi mu toll tollee ci xaru. moom dem na uf ko. mais seede la woo ko comme en tant que jullit. pour que suñu boroom jégal ko. pour wala ni moom mbaax googu la ko ji ba. suñu borom di ko jël moom mbaax ki mi ngi ci moom. Mm-hmm. mais que jàpp dem na ba moom tey jii xelam di ko yedd moom. Mm-hmm. parce que li naan des fois nit ki tribunal bi ko gën a sonal ci àddina mooy conscience am. parce que bu doon nii rek euh, tribunal boo xam ne dañ koy jëm jàpp ci kaso bi. Mm-hmm. mais daf ci am loo xam ne du dañ. te dafa jàpp ni de moom moo koy dindi. mooy conscience am. mooy ki ko lebal lu baax. Mm-hmm. moom mu ñëw fas yéene ko mm-hmm. fay leneen. Mm-hmm. loolu la mënta attan ci xelam ba. te mënu ko ratifier. mais la solution nekkuloon woon xaru aussi. waaw moom ah, la ah, xaru la jël la solution aussi nekkuloon xaru parce que mm-hmm. aussi avec le temps dem na ba nangu ni moom mm-hmm. li mu nekkoon di dëgg dem na ba teg ko daan ko mm-hmm. mais bu yoon jeexul waxul lu jeex mun na wàññeeku doon ki mu doonoon reconnaître ay erreur am parce que aussi tamit fii lu ne nit mun na ko def mais l'essentiel mooy nga jéggalu ko te bañ ci dellu ci waat parce que nit ki la suñu borom bindee lii parce que tamit bu doon nit ñëpp doonoo baax ñi bon duñ am sens maanaam ñi baax seen baax li koy wane mooy ñi bon parce que yow boo mënee wax ni femme bi dafa baax rek parce que kee dafa bon ci wetam pour nga mën a xàmmee baaxam mais ñoom ñaar ñëpp bu ñu baaxoon tey ji loolu du am am na yenn saay nag dañu bari dañuy eh, jàppee leen mooy doon xarit ak jege. waaw waaw maanaam nit ki. mën na la jege sa du doon sa xarit. dëgg la. parce que jege bu doon tax a doon xarit ndox du togg jën. dëgg la wallaay waaw waaw loolu nag des fois c'est très compliqué nga gis koo xam ne de loin sori na la ci kanamu nit ñi. mais mi ngi lay def ci ma lay def ci biir xolam. mi ngi lay téye. moom nag dafa jàppoon ni jege gi mooy ak xaritoo maanaam dafa trompé wu. ci ki ko jege. ak ki doon xaritam. te des fois loolu day différent loolu tax des fois relation. ñu bëri juum ci loolu dax dañ ciy juum. waaw relation dina la jege te fekk du sa xar waaw noonu la. waaw mhm. loolu day loolu day faral di am mhm. mais l'essentiel yow yow mi baax mhm. ak ku mën a ñëw ci àddina yow bu mu tax yow nga soppi ni nga meloon parce que nag baax ba xëy réccu ko amul fenn waaye itam bon ba xëy am ndam amul fenn xam ne mbon dafa sakkan mu nga di ko def nag mu mel ne yow yaa ngi ci lu baax mais da ngay dem ba benn jamono jamono wan la la nga nekkoon dara du si dëgg mais baax mën na metti jafe mais am na foo xam ne bu fa eggee ci àddina mm-hmm. mbaaxam googu suñu borom da koy fay te loolu moo am ci soxna si dëgg la am na am na solo li nga li nga wax la mooy mbon mbon am na piri mais euh, maanaam euh, mbon am na piri maanaam ci moment bi nga ci toll da ngay nekk ci donkaasu gi waaye benn bés rek day ñëw nga dal di wàcc te muy dëgg bu wër peng di di laa terebe di di ñëw macha allah Fatou mm-hmm. séeréer bi séeréer bu naay <laughs> Fatou andeet nga lu am solo maanaam sax mun naa alaaji saa ak Omar wax nañ lépp waaye loo wax wax doyut mu nekk <laughs> de ma ne loo wax doyut <laughs> waaye ba sànni si tuuti rek <laughs> ndax dafa nekk loo xam ne faatu actualité la te jamono gi dafa nekk loo xam ne ñu bëri kër yu bëri ñu ngi koy dund surtout kër famille muy wàllum donn wàllum misa nga xam moom la ñu woowee miraas mm-hmm. faatu li olof Njaay di wax dëgg la donn sa baay doon sa baay ko gën mm-hmm. des fois nit ki di nga foog ne euh, sa baay am na lépp tey su ma màggee dinaa am lépp déedéet mm-hmm. gis nga jéeg-jéeg sëy sa kër ga li ji ah, saa wax léegi rek mm-hmm. ñooy rey seeni i jëkkër yi te deewaguñu ah, parce que en général da ngay gis kër wujje yi li li ñuy njëkkalante mooy jur gu bëri mm-hmm. parce que ñu ngi xalaat ëllëg bu mm-hmm. waaj dee kan mooy ëpp ëppale donn mais faatu dund gu jeexagu lu ne xaj na ci gis nga ko am benn doom benn doom ba mun nañoo jëriñ ko loo xam ne baay ja toog ngeen di xaar miraas bëri la barke la ko gën baay ja toog ngeen di xaar miraasam kooku mun nañu am double ka jur ay jur jur jur kooku mun na am doom yoo xam ne amul luñ ko sax njëriñ benn cent franc bu ñu ko mun a jox pour man lépp lu ñuy def rek nañ ko xool ci yàlla seet ko ci yàlla bu ñëwee ci wàllum xarit gi nga xam ne moo war xaritam tey faatu ma bëgg la yéena la sama bopp ma nekk ay situation wóolu ma ci kenn ku dul yow Fatou kon xam nga ko am na fu mu teg xarit bi kooku bëgg na xarit waaye tam woolu na ko ndax yaakaar naa koo wóoluwut doo ko boole ci sa vie wala ko koy boole sa fañ ba koy boole sa jëkkër mu koy takk ñaareel tey kooku li ko waroon rek mooy soutenir xaritam. Mm-hmm. dimbale ko jàppale ko ba ba problème yi mu nekkee sax amaana mun na mun mënoon nañoo juboo yenn juboo wala yomb yenn benn yomb boo xam ne mm-hmm. dinañ fàtte problème bi te kaadu am wala stress du am mm-hmm. mais dafa ñëw yokk xarit bi stress kon xam nga kooku nekkutoon xarit sama benn waaye maa ngi koy nuyu gaañ da daan wax naan euh, xarit dañ koy wax segg waaye dëgg la nit mën nga nekka nit mu jege la lool mais xam nga lan moo fa indi xam nga lan moo fa indi pour ëllëg bu génnee wax ñu ne kaka jege de moo wax. ndax day neex a gëm. Mm. pour yàq la day yomb. wolof yi day fa ngay léebu ñu ne. Mm-hmm. maytul mun a kunaal ma kaame yenn la. <laughs> yenn saa yi du ci jublu pour nga oyof waaye da ciy jublu. yërul la nekk ca biir ma nga la yàq. dëgg la temps bi ta waaw waaw mayuñu mais ak lu mënti am rek euh, euh, euh, nañ xalaat suñu diggante suñu borom. dëgg xam ne ku war ren ba daaw mu jig ren ba déwén mu jig la. dañ la koo jiñ du yow. dëgg la dëgg la am na solo suka mm-hmm. man damay wax ni que ci ci la ko yàlla maye doom mm-hmm. dëgg kaw mbaaxam mm-hmm. imaginer koo xam ni dañ ne woon da nga jaasiir mm-hmm. mënoo am doom yow nga baax ni damay wuti damay damay jël sama xarit boole koog nit nga génn di saraxe di joxe lekk gis nga yàlla li mu dem gi gën a di joxe lekk mm-hmm. dajeek uh, ko waay waay yàlla mm-hmm. waaye yàlla boobu ñaan suñu borom suñu borom may dal mm-hmm. loolu ci mbaax ga la dëgg la loolu baax gi mu baax moo tax yàlla yàlla may ko doom imaginal doom boobu fa mu mujj gën koo danoo mujj jugal ko ci oto def fa bomb mu dee te ba pare moom moo mujj yar déedéet moom mujj yar doom bële nga xam ne kee moo gaañu moo tax lépp lépp yàlla la mm-hmm. Mm-hmm. mais tamit bu dee xarit moom mm-hmm. man de wax dëgg yàlla duma wax kenn takkalal sama sama jëkkër ah. du ma ko takkal wujju ah. euh, nii ma takkal la ko sama xarit ñëpp am nañ daal ni kaay sama xarit kaay sama xarit nga dama laa bëgg kaay ma may la sama jëkkër du ko def ci àdduna gisuma loolu ndax xarit amul ko leen sama xarit la doo xaritam xam nga kan mooy sa xarit sa doomu nday boo bokkal nday ak bàyyi wala koo xam daf laa daf daf la daf la yéen a eh, jàmm xarit euh, amul man pour man Omar am na dafa nag am na aw aw ma ko. am na mais dafa dafa dafa raara am na yàlla dafa raara bu la yàlla dimbali bu la yàlla dimbali woon ba yàlla xamala leen ak ñoom doo doo leen bëgg ñàkkati y a des gens qui sont très bien. voilà man nag wax dëgg yàlla kenn laa amoon xarit. dëgg la sama mag. Mhm. ay da mbaay ñun ñaar ñoo bokk la am na am na solo am na solo Souka Mbaye daane gannaaw temps bi jeex na rek euh, xanaa di naan euh, ñi nga xam ne ñu ngi takkal seen i borom kër wujju nañ koy xoolaat bu baax a baax ndax am na ay cas ay cas yoo xam ne moom kenn mënu koo lim mu ngi fi ay nit dund ko te ñu gis ci teg ci bët aussi mu nekk lu ñaaw waaye képp kuy war ren ba déwoon mu jig la rek du yow dañ la koo jiiñ kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di jaajëfal nag Modou Guèye mi ma solal lii Modou Guèye ca marché ngelaw moom moo def euh, zone bi mu ma génnee ni Omar Boun Khattab ne ma dangay ngay kase ak plateau ah macha allah plateau solution TV bi kon Modou Guèye maa ngi lay jaajëfal xam naa ne ci kanam toog dina ma affiché numéro bi incha allah gannaaw man du ma këru numéro <laughs> ba mercredi tey ndegam neex na yàlla naay setti na macha mm-hmm. allah li ñu indil tamit am na solo lool muy war muy wax ci li nga xam ne rek moom moo di mbaax comme ni ko Omar bu ñu xataa waxee ni mbaax yomb na mais dëkk ca moo jafe